ila ma la yaribuka rawahu tirmisiyu wa nisaiyu wa qala tirmisiyu xadisul xasani saxih mu ne an an abi muhammad yoreen si baay muhammad xasan bunu alin xasan doomu alin xasan bunu alin xasan doomu alin bunu abi talib mu ne jëlee nañ si xasan xasan moom moo nekk ba ki nga xamante ne nii yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf kaa bëgg moom xasan ak xuseyn ñoom ñaar ñoo nekk ki nga xamante ne ñoom ki nga xam ba li nga xamante ni ñu ko ko laal rek di nga jot yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ñoom ñaar ñooñu bisu àllaaxira ñoom ñooy nekk ndaw ñu nekk foofu noonu ñoom ñaar ñooy nekk seen sang mu ne sibtu rasulillahi sibtu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu ne wa rayxaanatihi kenn ak xolam mu ne wa rayxaanatihi kenn ak xolam mu ne rayxaan nag bi nga xamante fleur la bi nga xamante ne fleur bu neex la bu neex xet ba nga xamante ne boo ko jegee doo ko bëgg a sori yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon si ñoom ñaar mu ne radiyallahu anhuma yaa na leen yàlla gërëm qaala wax na xafitu mokkal naa min rasulillahi si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne daa bàyyil maa yari bu ko maa yari bu ko lu lay sikkaloo ilaa maa jëm si li nga xamante ne laa yari bu ko du la sikloo mu ne lépp li nga xamante ne nii da si sik sàkkal nga bàyyi ko dem si li nga xamante ne nii doo si sik sàkkal yow cigarette da nga siy sik sàkkal boobaa kon yow bàyyi ko lépp li nga xamante ne nii yow xamu ba xam lu xaraam la wala dagan la boobaa kon yow noonu yow bàyyi ko nga dem si li nga xamante ne boo si duggee doo si sik sàkkal jàngaloon nañ la mais comme bu mel noonu rek إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتقى دينه وعرضه waxoon la mu lépp li nga xamante ne dafa lënt rek sori ko boo ko soree di nga setal sa diine di nga setal sa diine waaye boo ko jegee bu baakoon sa diine du du set mu ne rawaaxu solo xadis boobu nag mu loolu mu loolu doon wax lépp li nga xamante ne da nga siy sikk sàkkal rek bàyyi ko nga dem si li nga xamante ne doo si sikk sàkkal mu ne rawaaw solo na ko tilmisi tilmisi wa nisaa yi ak nisaa yi wa qaala wax ne tilmisi tilmisi xadis na xadis bi xasan bu rafet la saxiixun bu wér mu ne xadis bi xadis la bu rafet bu wér mu ne al xadisu saani ashara mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min xusni islaami al mari tarkuhu ma la yaani xadisul xasan rawahu tilmid wa xayru hakada mu ne an abi hurayrata jëy nañ ci borom muus mi radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm xaala wax na xaala wax na rasulullah yént yàlla salla yàlla dool ko allahu yàlla alayhi si moom wasallam te dool ko musal mu ne min xusni islaamil mar'i bokki na suñu rafetal islaamu nit ki tarkuhu mu bàyyi maa laa yaani lu ko amul njëriñ mu ne bokk na suñu rafetal islaamu nit ki mu bàyyi li nga xamante ni moom amalu ko njëriñ comme li nga xamante ne boo ko defee doo si am dara dara dara doo si am gërmande doo si am barke doo si am tiyaaba mu ne comme ay foo yi nga xamante ne amul njëriñ ay mboosoor yi nga xamante ne amul njëriñ yooyu yëpp noonu na nga ko bàyyi soo bëggee rafetal mu sa lislaam mu ne wala kon nga ñëw fekk ñaar ñi nga xamante ne ñoo ngi waxtaan xamoo lu ñuy waxtaan nga ñëw di déglu te loolu noonu amul lañ njëriñ wala nga toog si mbalaa di tëb di dal wala nga téye kuddu gi di fëgg di fëgg loolu noonu amul la benn njëriñ mu ne xadisu xadis bi xasanun bu xasanun rafet la rawaahu solo na ko tilmisi tilmisi wa xayruhu comme noonu wa xayruhu keneen ku dul moom hakaza comme nii mu ne xadis bii nii mu ne xadis bii nii am na keneen ku ko nettali waaye tamit comme nii mu la ko nettalee kon xadis bi xadis bu wér la lépp lu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax rek loolu noonu lu wér la parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom di waxantu lépp lu mu wax rek dañ kaa waxi alxadisu salis achara mu ne an abi hamdata anas ibnu malik radiallahu anhu xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an nabi an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yuminu ahadukum xata yuxiba li aqihi maa yuxibu li nafsi mu ne an abi hamza jëleen ci bàyyi abi hamza anas ibnu malik anas doomi malik radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm mu ne xaadim rasulillaahi min daan yénte yàlla muhammad salallahu alayhi wa mu ne anas moom moo nekk yénte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ku baax gi noonu nag mu ne nag nekk naa yénte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam di fa liggéey lu mat fukki at waaye yénte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam musu ko wax defal nii bàyyi lii defal nii kon kooku noonu xadis bi bu buñ ko delloo képp ki nga xamante ne mu day dem si kër di liggéey war na roy kii nii ba nga xamante ne bu demee si beneen kër di liggéey warul nangu ñu koy wax dara kon kooku gis nga boo demee beneen kër di liggéey nga toog fa lépp lu la war rek nga def ko kon bu baax kon yow mu kenn doolu wax dara waaye jamono ji am na nga xamante ne da ngay da ngay dem si kër di liggéey def mu nekk su noonu nit ñi nga dem gars yi di la jëw parce que yaa def mu nekk su noonu waaye jëw boobu noonu baaxul xaadima rasulillah mi daan yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anas mooma nekkoon min daan yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana nabi na yente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salla yàlla dul xew allahu yàlla alayhi si moom wasallam dul ko musal xaala wax na laa yuminu du gëm ahadukum kenn si yéen xataa yuxib xataa yuxiba lu may mu bëgg li aqihi ñeen mbokkam mu ne xataa yuxiba lu may mu bëggal li aqihi ñeen mbokkam maa yuxibu lu mu bëggal li nafsihi ñeel boppam mu ne xadis bi nag lu la bëgg a wax mu ne lépp li nga xamante ne nii da nga kaa sa bopp yow da nga ko bëgg a li nga xamante ne da nga bëggal sa bopp na nga ko bëggal na ko bëggal sa mbokk jullit na nga ko bëggal sa mbokk jullit comme nan yow am nga oto yéene ko keneen waaye yow nga am yow yàlla may la oto bu rafet yow nga yow nga naan kii yàlla mu am oto bii kon loolu noonu yow sa gëm yàlla des na parce que jullit bi jullit dëgg lépp lu mu bëgg rek da koy yéene keneen parce que jullit xolam bi daa war rafet yow bëgg nga am xaalis waaye bëggoo keneen am xaalis kon kon yow loolu boo ko saraxul joxoo ko asaka ba si yàlla yow yàlla wala kon yow chaque jour da ngay génn di dem ñaani ceeb yow kese yaa am loolu waaye yow bëggoo keneen ku la topp bëggoo keneen kon kooku noonu yow kooku noonu yow li nga bëggoon sa bopp bëggaloo ko ñeneen sa bopp rek nga ko bëggal xadis bi nag loolu la bëgg a wax lu mu la bëgg wax fii mooy lépp li nga xamante ne da nga kaa bëggal sa bopp lépp li nga xamante ne da nga kaa bëggal sa bopp rek bëggal ko sa mbokk jullit mu ne rawaaw sooy na ko buxaari buxaari wa muslim ak muslim kon tey loolu lañ indi woon si dars bi mu ne in uridu illa islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu